bay du Mbaye Issa duñ jeex ñoo xam ne fii la leen seexe ba takk leen ndombal tànk danaa ci nettali benn xis sa wàcce sama kàddu fii Seex Ibra seexal na fi am tan mas ngeen a dégg am tan tan yii di naaw Seex Ibra seexal na ko fii ci cees waaw mag ngi nee nañ tan mi daa jekki-jekki ba mu yàgg na cëpp ci ëtt bi boo delluwaatee ci waxtaan yi ñu def ak mu Moustapha Seck ca yàgg na de nee na Cheikh Fall naa doom lii lu mu doom ñu ne am tan mun a am tan ñu ne waaw mun a bu ma neexee mbooloo topp ko de man ñu ne teg mun a jàppal leen ma bàyyi baaba ngom ak góor ga sant jéy diir tan ma waaye tan ma xam ma day naaw ba dugg ci jaww ji duñ ko séen ñu topp ko topp ko topp jàppuñu ko tan mi jekki-jekki ba mu yàgg ci naaju tàng yi mun a cëpp mag ñi ne ko nuus jàpp seerafal naa doom ñëw na ñu ne waaw mun a indil leen ma mag ñi nee na ñu indi ko maam seex téye ca boppam tan ba moo boppam bu tut boobu daal di ñaan tuflu ci na bàyyi leen ñu bàyyi tan mi ne jiif jiif mënta dem ne suuti ñetti tan naawe ci àll ba ña cëpp ci wetam ne suuti juróom benn tan naaw ña cëpp ne suuti fukki tan ak nangam ba ëtt bi yëpp di ay tan mag ñi nag di ko woy naan ko jàpp tan def ko seex ku du dooy maam Seydi mu Njaay say ma yëggu ca seex bi def na ko fii ci Thiès moo tax nag. yi ma indaale ay waxu yi nga xam ne. boo ko dégloo dafa am lu lay fàttali xam nga taxaw naan Cheikh Ibra Fall seexal na aw tan dama xamul ah, tan ana tan ana diine mel la xamuñu cheikh muy tekki waaw tan an tan ana diine xam naa boo seexalee aw tan de moom seexal nga ku lekk ay medd ak ay sobe waaw boo seexalee aw tan xam naa de seexal nga ki xam ne ko ay nit mën a maanaam ku ku mën lekk ay mit see ci biir waxam nee na su ma neexee ma seexal ko léegi ay nit topp ko ah, te moom de si waxam moom moo wax bu mu seexalee tan bi de ay ay tan ñoo naaw ñëw ñëw foofu topp si waaye nekkul ay nit gis nga quelle contradiction xoolal duñ tey sax suñuy wax yàlla borom subhanahu wa taala moo leen nattu waaw tey dañu xam loolu loolu ay mbir la ba nga xam ne tey boo ñëwee fii Fuuta pël yi ay pël yi nga xam ne sa waay noonu la ñu mën a njabar loolu xale bu ndaw moo la koy defal xale bu tuuti waaw wax suuf si bopp nit benn mbir ma xam ne bu génne léegi-léegi ñëpp ko moom lu ñuy defee sax euh, jigéen bu nit bëggee jigéen bi maanaam bëgg ko du ko tey am na xam tey boo ko waxoon léegi léegi léegi nga nga nga tuflik sa loxo booy jox jigéen bi loxo dalay topp ne xaj waaw ndeyam ak baayam buñ ko doon rey sax da lay topp moom lay gars yi di jafe yooyu noonu jigéen leen topp ni njaaloog ñoon waaw kon loolu du diin lislaam yaa may dëgg du diin lislaam aw tan nag nga ne yaa ngi ko def kooku jël mbaam def ko cheikh benn la wala mbaam mbaam sax moo gën tan de moo xam naa boo ko defee aw cheikh kon de def nga ku mën lekk ay médd ku lekk ay sobi def nga ko def nga ko cheikh lii nee naa dafa am lu may fàttali benn borom xam bu muy bind ci Fatimi yoon yi bu ñuy maanaam sosee bida mawludi nabi mooy sos li nga xam maanaam moom mooy anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yemuñu ci dem ba yàgg créé mawlud maanaam uh, Ali dem ba yàgg créé mawlud al-Hasan mawlud al-Husayn mawlud Fatima nee na ahdathu ahdathu ayaadan neen ni sos di sos di sos ay feet di sos ay feet hatta ahdathu ayaadan li li suumi wal basal nee na ba ñu créé sax maanaam euh, feet soble ak feetu maanaam laaj bayuñu di créé di créé ba mujj tabbi si façon feet bu nekk façon anniversaire bu nekk neen ba ñu créé sax anniversaire maanaam soble ak ak li nga xam maanaam moom mooy moom mooy laaj kooku benn borom xam-xam dundoon na seen jamono xam na maanaam la xewoon boobu jamono kon ñii nag ku topp di seex di cheikh seexal ay eh, tuuxkat yamba seexal ay naankati sàngar seexal ay dof fan ngay mujj mooy seexali ay tan waaw ay tan rek ngay seexal mu ngi nii nag waaw ay tan bu yàggee daa seexal ay ay mbott ak ay janax waaw kon nag ala kulli haal lii moom day gën di fisal seen réer ni di gën di xam maanaam yoon bi yoonu réer la yoon bi nga xam ne maanaam seen borom duñu julli duñu woor bëgg askanal seen bopp ci diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man loolu rek moom ci naqati bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu beddeekoon taxaw fee wax ñëpp ñoon nekkuñu si diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoon duñ jul duñu woor boobaa du am problème mais li ci gën doy waar moom mooy bëy bi nga euh, euh, maanaam bukki bi xam ne dafa sangoo deru bëy nekk ci biir maanaam bëy yi boobaa laa xaw la ko ci laa bi laa bëy fu ñu mujj rek mooy jeex loolu moom mooy maanaam seen misaal ñoon waaw te dañuy sonnal seen bopp seen li du jëm kanam suuf rek la jëm yàlla moo koy nasaxal waaye nekkul lenn lu nasaxal diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ko créé moo xam ne ni tey ko wala xamuñu ko wala seytaan moo leen fooyee ba ñu dof di def yu mel ni ala kulli haal sikk sàkk amul seytaan lu ñuy liggéeyal ak njoñu seytaane waaw seytaan lu ñuy liggéeyal ak njoñu seytaane man yii yëpp su ko déggee damay xam ne ñi seytaan lu noonu liggéeyal ak njoñu seytaane ba pare defee ñiy wax ñii dañoo xeexal tubaab bi parti parta xeexal tubaab bi yow ngay bayloo ñu ni julli ak woor nga ne yow da ngay xeex tubaab bi ba pare man mosuma gis yoon bu bëri contradiction comme yoonu murit neenuñ Serigne Touba gaal gi la moo mu julli si ndox bi dañ ko tereen julli ci gaal gi tellement moom dafa respecté woon julli ba mu sànni deram yaa ngi may dëkk si kaw ndox bi di julli même tarix boobu moo lay wax ni maanaam Serigne même Serigne boobu moo moo ñu ne ñu ni maanaam taalibe ma nga ni moom du julli du woor di yoonal ay taalibeem du julli duñu woor xoolal ma lii rek quelle contradiction ah kenn contradiction dafa mel ni rek ñun la maanaam diw dee dafa jabet ba yàqu waaw diw neen moom dafa jabet ba yàqu ñu ne denn waay ñu ne fekk nuñ ko ma nga ma nga teg benn kopp kafe ma ngi ci def maanaam ah, ah, ñaar fukki bekk suukar di ko naan xam nga lii képp koo ko dégg deen xam ne kii dafa yabaate kii dafa yabaate kii maanaam lu contradiction la ci même tarix yéen nga ne seen sëriñ bi dafa tellement dafa respecté julli du tooñ yàlla du tooñ boromam du tooñ moromam ah ñun waxtu julli jot mu sànni diram ah su seen ay fen ne mu ngi julli ci kaw ndox bi ñu ne dénn waay même tarix yi ñëwaat di wax maanaam ah taali bi kooku moom julli wàcc na ko ak képp ku top topp ah da ngeen nax nit ñi man dafa leer sama bopp comme nu ma leeree sama baat juróom baaraam yi ñoo ñi ñu si gën baat lu noon jàppale waaw ah, jéem di doon jéem ëlëm nit ñi rek kees waaw dem leen archive nationale dem leen dem leen archive nationale man toogoon naa ak benn benn benn daw si jigéen professeur mu ne moom ak jëkkëram maa ko doon wax mu ne la ngay wax li nii naa la ko dëggal man ba may def sama thèse ma dem archive nationale IFA mu ne gis na fa ay archive yi wane ne Cheikh Ibra Fall ah Cheikh Ibra Fall il a travaillé pour les blancs liggéeyal na maanaam tubaab bi neew nañu sax moom mercenaire la woon liggéeyal na tubaab tubaab bi wax ñu ay mission yu ko doon yónni muy dem di ko defee ci tubaab bi di décrire lépp décrire sax ba décrire li xam maanaam mooy portrait maanaam euh, maanaam euh, physique am ak moralam ak lan la gënoon bëgg wax nañu da doon tux neen neen tux bëggoon na ko trop ak jigéen bal sax am na sax fu ñu bind sax di maanaam ni wax loolu ci biir maanaam archive yi dem leen foofu lan moo tax historien Sénégal yu gën bëri am na ñoo xam ñeme ñu ko wax waaw ngeen di ngeen di tànkal ñu ni xeex tubaab bi par par du benn dëgg c'est pas c'est pas vrai. même sëñ tubaab bi ñoo doon doon xeet tubaab du benn dëgg c'est pas vrai ngay xeex tubaab bi kon pourquoi nga ngay lebal ngay lebal tubaab xaalis kan moo lebaloon kan moo lebaloon benn chef de canton xaalis fii fii ci fii ci fii ci fii ci Sénégal xaalis boo xam kenn xamul nu mu toll eh, bu leen bu leen bu bu nax seen bopp te yi yàgg yàgg yàgg yëpp ay feeñ yi yëpp yu fi lakkatoo yëpp dana feeñ a ñii ñëpp ay pion tubaab la ñu woon kese waaw dañu dem benn instant di bëgg am nguur tubaab nag lépp looy def bu ci boole bëgg nguur parce que moom nguur la doon wut boo ko boo boo ko defee rek wala nga def lu xaw mel noonu rek mu rëq si ndig moo tax ni jàpp leen déporté leen waaw te ñu si gën bari di doon wut mbooloo di jënd ay arme ñu bari si ñoon waaw ki nga xam ne wutuloon mbooloo seen borom kenn attaqué leen ku simel mel ñoon El Hadj Malick kenn attaqué leen waaye Umar fudu Taal sax boo gisee tubaab yi def coalition ak bambara yi ak ki nga xam moom mooy pël masina yi xeex ak moom benn mbir moo tax parce que instant boobu nguur la doon wut Umar Fuuti Taal dafa mbubboo tariix tijaan doon wut nguur parce que nekkul l'islam loolu yóbbu Mali doo dem ci ñoon maanaam Ahmad bunu Ahmad nga xam ne ñooñu bu ñu gis islam say maamaati maam xamuñ sax xamuñ sax islam pël masina yi yaa may dëkk bu ñu gis islam islam duggagul fi Sénégal yaa ngi may dëkk waaw dëkk boo xam dëkkul islam la nga ne yaa ngi fay yóbbu maanaam euh, jihaad ban jihaad ngay def dem di rey ay julit waaw moom moo moo moo rey Ahmad bunu Ahmad bu ko jàppee dafa damm ay loxam damm ay tànkam yaa ngi may dëkk pare mu ni ko Ahmad yow soo ma jekkoon comme nag ma jekkee jekkoon noo may def Ahmad nekk boobaa ma rendi la rendil ba rendi suuf mun kon gaa yi def leen ko noon da gaa yi dam ma loxo mi damma tànka bi toroxal ko par rendi ko taqit comme kuy rendi xar yaa ko man fu ci maanaam moo ko def rey jullit yaa ngi dégg bu leen nax bu leen nax seen bopp seen ponk li ngeen wax fi yëpp ñoon ñëpp ay pion tubaab lu ñoon ñu si gën bari si ñoon waaw te dana leer ji allah yalla ma leen toroxal